ay gëstukat ci turu Kawaadirul Muridiya yi leen di nuyu bu baax di leen sant bu baax di leen gërëm di am mbégte lool it comme ni nga xamee ne groupe bi dafa dekk groupe boo xam ne dafay taxaw ci saabu mbir amee muy ay lënt lënt wala ay jafe-jafe yu am ñu war feeñal seen participation ñu taxaw leeral ca lañ man seen kemtulaay kàttan looloo tax tey incha allahu taala li ñuy wax ñu waxe ko ci seen kàddu muy gëstu boo xam ne nii dañ koo def ci ginnaaw bu ñu déggee ay wax yu jóge ci benn waay boo xam ne dafa jóg ne day leeral maanaam dafay raddu lenn ci mbindum sëriñ bi euh, su ko defee nag ci njëlbeen li ñu wax mooy ki ñuy jóg di wax ak moom du moom moo ñu tax a jóg ndax koo xam ne nii njëkk ngay wax ak diirum wax ak ginnaaw boo waxee ba noppi wax ja du ko jël bu ko faale kooku taxul ngay wax waaye ki tax ngay wax nag mooy ku mën a ku wax ji mën a egsi ci moom jaxase ko ba mu jàpp leneen lu bokkut ak li am kooku muy benn ñaareel ba mooy leeral gi ñuy leeral ni it li ñu xam-xam jox gëstu jox jox ñu ko ñu sukkandikoo ko ci boromi xam-xam loolu la ñu leeral nga xam ne wax ji duñ ci wax suñ waxi bopp duñ la ci leeral rek dañ lay wax fa wax ja nekk ba booy attaqué wax ji bul ñu attaqué ñun ñuy wax wala bopp kii wax ci seen tur waaye attaqué ña nga xam ne ñoo wax wax jooja ñaar ñetteel ba mooy kii wax boo buñ ko gëstoo ba gëstu ko xam nañu ne li muy wax maîtrisé wu ko ndax koo xam ne su waxee juum bu bindee juum kon xalaat yam lay jox noonu rek lay mën a deme su ko defee kon incha allahu taala li ñuy faral di wax ne borom xam-xam wax na ko nee na fasaadun kabirun alimun mutahattiku wa akbaru minhu jahilun mutanassiku mu ne yàq gi gën a rëy ci yàqu gi mooy koo xam li war a xam lépp ba noppi nag lànk ba tëdd ca naaj wa du def lu du def lu jar yoon nee na la ko gën a rëyati nag mooy ku xamul tus ne bëgg dafa bëgg a def loo xam ne ni ak jaamu yàlla la wala boog xam-xamam dafa gàtt ba noppi nag mu bëgg a teg boppam ca borom xam ya huma fitnatun fi l alamina azimatun liman bihima fi diinihi yatamassaku mu ne ñoom day fitna ju rëy lañ ci mbindaa fon yi ci képp ku jàpp ci ñoom kon loolu ñu gis ne kon bari na kuy wax koo xam ne nii li war a am bu amoon dañu koy femm buñ jël ci moom xam-xam bal daa war a sàkku ji xam-xam yokki àll am feeñ na ci biir waxam ci andi na fi nag ci biir waxam waxi waxi tey jii lu tolloog ñetti wax ñetti wax yooye ñun lan lañ ciy wax nee na dafay raddu li sëñ bi wax ci biir xaatimatu munajaat ci anna haram tarfa'u al almalaik ila tuba ba wax ja jeex wa fihi nabi wa fi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ma amini wahyi wahyillahi wa yadkhulu fiha fihi maahuma katibu hadi alxuruf fii sëñ bi di leeral ne ki bind xaraf yi muy mom muy sëñ bi wax na ne baytullahi al haram yi yekati yóbbu ko tuuba yonente bay ci bir sallallahu alayhi wasallam sallam ak amin wahyillahi te ki bind xaraf yi ma ngi ànd ak ñoom ci biir mu ne wax juju mu fab moom la fab ne di ko raddu di ko di ko di ko leeral wax juju balañ ci ñëw ci moom li mu wax ñoo xam ne wax la joo xam mi ngi rot ci téere bi ñu koy gis muy téere bi ñuy wax xaatimatul munajaat léegi nag ci biir wax juju sëñ bi wax baata ngi ci boo xam ne bu mat a bàyyi xel la mooy tarfauhu tarfauhu boobu nag xam nañ ne fial bi ci maanaam fialu mudaarian la mudaarian nag dafay tegtale lu teew waaye dafay tegtale lu jublu li ëpp ci ñuy dégg wax ji nag ni ñu koy firee mooy rafaxahu kon day mel ne lu ñu def ba noppi la waaye li ñu dégg ci maanaam fial bi mooy lu teew ak lu jublu si ci kon bu ñu jëlee wax ji ba di ko jàng ci naxwu kon fi mu ne lu teew lay doon wala bokk lu luy jublu si benn ñaareel ba mooy rafu googu buñ ko jëloon di ko leeral jëm a tasil baat bi bu fekkee ne jàngale nañ ne day fama ye fi mujisata nabiyi yajuusu fi karamati lwaliyi sax na day ci mujisa yonent bi alayhi salaam lu mel noonu ndax yonent bi bi nga xamee ne riñaan na bàyyi ko makka dem bayt maqdis dem ci borom bi subhanahu wa taala bi mu ñëwee hadis saxal na muy hadis boo xam ni ngi ko jëlee ci ibnu abbas euh, isnad boo xam ni ngi ko jëlee ibnu abbas moo ne yonent bi sa dafa ne ci guddi gi ma giñ ko riñaanee bi mu xëyee nekk ci makka dafa xaw a tiit nga xam na ne nit ñi dañ ko dañ ko dañ ko weddi mu jaru jàq noonu bi yalla borom ko muy abo Jahal ñew ci mom la melni ku koy reetaan di koy laaj nak mu nettali ko riñan gi mu wax ko ne ko ndax buma dajale so nit ma da nga len nettali lii ni mu dajale ni mu ne ko ndax da nga len nettali ni mu ne ko mu dadi mu dadi dajale nit ña wolen pour mu jaar fi nga xam ni fi la jaaroon ak ya. ma asara bani ka'b ibn lu'ay waaw ñëpp maanaam mbooloo mépp boo ko dajale wër ko dégg nga hmm. ban toogee nag wër ko mu ne leen mu ne ko nettali saw nit ñi li nga ma maanaam li nga li nga nettali léegi yonent bi wax leen riñaane gi ñu ko riñaane ci guddi gi waaw ñu ne ko foo riñaane mu a de baytu maqdis xëyat nag ñëw ñu ñu ñu gis ko ah mbooloo na nag ci biir loolu yonent bi sam am nañ ci ñoo xam ne nii wax ja ñoom dañ koo nangu dañ ko dañ ko dañ am ñoom ñoo dañoo dañoo ñoom dañoo jaaxle ñenn ñay tàcc ñenn ña di teg seen loxo ci seen bopp di yéemu ngir jàpp ne wax ji moom lu ñuy wax la. am na ci nit ñi koo xam ne xaj na tukki woon na ci dëkk booba gis na jàkka ja moo yonent bi soosam pour mu melal ko euh, nan la nan nan la mel nda jàkka ji mel ci naf sa hadis bi dafa wax ne bi nga xamee ne. nar na nu xaw a jaaxle ci lañ ko andil fa ji abil masjid yi may xool jàkka ji moo di ko xool xatta wudia euh, duuna daari iqaan aw oqayl nee na ma di ko meral di ko xool di ko meral kon foofu ji abil masjid la andi waaye bu ñu ñëwee ci riwaaya bi nga xam muslim moo ko nekk li jëlee ko ci abi hurayra radiyallahu anhu mu yonent bi saa su wax ne euh, bi nga xam ne waa Quraysh ñu may laaj sama ñaan ñu laaj ma ay mbir yu bari boo xam ne nii biñ ma ko laajee ma jaq tiit mu ne farafaahu llahu lii anzur ilay boobu demee ci bi nga xam nekk jëlee ko ci Abu Hurayra mu raf lii anzur ilay may xool la nga xam ne moom lañ may laaj du ñu ma laaj dara lu may muy gis ko wax leen ko kon jee bil masjid benn ngi noonu fa farafaahu llahu farafaahu llahu lii anzur ilay ñaara ngi noonu beneen bi nga xam Buxaari moo ko nekk ak muslim jële ci Jaabir ibn Abdullah mu ne dégg na yonente bi salaa sallam yoo xam ne dina waa Quraysh weddee dama taxaw fil xijri fa jalallahu lii baytul baytul maqdis yàlla wuññil ma leeral ma baytul maqdis ma tàmbali di leen xibaar an ayatihi wa ana ansur ilayhi kon xoolal baatu ci cosaan baatu rafu boobu am na ñëw na ci biir siyaaqu ay alfaas ci ci xadis be fa jia bil masjid bii fa rafaahu allahu li ansuri bii fa jalaa fa jala allahu li baytul maqdis kon ndeke foofu ci même sens bi rek man naa jantal ñu wëññil ma wan ma waaw su fekkee ni ne mm, loolu am na ci nekk mojisa bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam te ñoom lépp loo li li séparé diggante mojisa ak karaama mojisa dafay ñëw di isbat nu bu watu ki yónni karaama nag yàlla da koy seeñal ci loxo koo xam ne wàllu ci aw li am ngir seeñal ne kii kum gërëm la kon suñ borom subhanahu wa taala bu defalee ab jaamam ab kasfu ba wan ko ay mbir kon waxam jooju mu wax lañ wara a gëstu kay moy nak ki wali ci wali suñu borom te mat yi tekk leen wilaay daje na ci ñal ñàlla may tawfiq ñu nangul waxam ja fam ko tek su ko ñal defu lu tawfiq nak ñu taxaw di wéddi waye li leer ba leer moy raf googu du caagi na seen bi def ci jublu déjjati kaaba ga makka ñew ni ko tuba di am do bi dalili wax ji nga xamne da fay ñewat ci biir waxam mu leral ko ngir nebet gum doon nebet dem mak ba lay yegi ci loolu waaji nag bàyyi bàyyi na fi maana yi rafu jamtal yeb dal jox sens bi maana kon yekati na moy jele nañ ko fofu yóbbu ko màkka lool dal di ciy binaa nag ay wax wonne ne kon looloo tax ñom gëmunu aj duñ aji makka ndax ginaaw kaaba da nga fofu dal di wax ne waye nak nañ xamne ne wër kaaba gi dongu duk aj dox sama marwa ngi fofu fa dégg nga euh, taxaw arafaa nga fa kon nañ ñi jàppalul nañ xam ne loolu dong du muy wax ju xorom li dàq wax ju mooy sëñ bi xam ne ne kaaba ga mooy kaaba kaaba ma nga foofa ah yàgg mébét lool aji wax ko ci ay bindam yu bëree bëri bëri ajali ay nit it teg ci ba noppi it nag amoon yéene aji koy ami gàllankoor buñ delloo ci ay waxam kay dañuy gis ne kay teg na kaaba gi palaasam xasida yu bari boo demee da nga cee fekk muy junj ak bëgg a ziyaara ji yonent bi alayhi salaam bëgg aji màkka kon muy daq li wax waaj wax boo demee ci xasidaam gi ñuy wax futuxul mukarram aw futuxul mukarrim xasida la bu ñuy tuddee futuxul mukarram awil mukarrim xasida googu da wax ne yaminu rabbi liqa yaminu rabbiya liqaauhu ahab إلي من ملء بيوتي ذهب ديوانني دم مكة زيار بي يونس عليه السلام موم لا غنا بغ ني فيسال سما كير اك ورس با ديمي سي قصيدم بي ني تدي فتحل فتح وخني لو خاوي خيتو نون يمين ربي مزار المتبى افضل من ملء البلاد ذهبا دم مكة زيار يونس عليه السلام موم لا غنال سي فيسال سما يطيب الفؤاد زور البيت مع المدينة قبيل الفوت لي تيال سما خول كاي موي زياره جي كابا مدينه بلا موي فات يا ربي زور البيت والمدينة زيارة عن الرياء مصونة ويا ربي زور, البيت والمدينة زيارة عن الرياء مصونة آه، ونني زيارة مكة مدينة تي ziyaara boo xam ne nii dana dox sama diggante ak ngis la boo demee ci euh, ci xasidaam gi ñuy wax maanaam ziyaara googu ziyaara goo xam ne dana dox diggante ngis la maanaam boo gisee bu demee ci xasida gi warum naa sukkural la di bil kaaf woon noonu da nga cee gis mu wax ne arjo bi rahmatihi l muhdaati sayidina zawri madinatahu daara rayahin allahu akbar maa ngi yaakaar ci yërmandeem jii di sayidina Muhammad salaam ziyaara ji madinaam ba fi nga xam ne nii foofa rek loolu baax tëdd dégg nga daarun mata maa yazurha zairun li hudan yasaat hiya daaw daarul xaqi wa diini mooy kër goo xam ne ni saa bu ko kuy ziyaare ji ziyaare ji ngir ak njub daa daal di texe ndax foofu mooy këru dëgg mooy këru diine boo demee ci xasidaam gi nga xam ni nga ko tuddee xata aqanil yowma xubbul ahli wal waladu wax na ci من لي بروض حرون كي يقاد إلى بيت هو البيت عند الله منذ بني أنا في مجالكم أي تاجتال لو خم دنا ما ومت جاي مشي نيك بوبي لو خم موي نيك بيا الله با بين كتبه من دبي كتبه موي موي نيك سين بروف بانو تالا بيت دعاني يا ربي والخليل معا إلى زيارته قدما من الزمن موي بيجو بري بري لو خم ني بو بو بو بو بو بو بو بو بو زياره دي كابا في قصيده دي مطلب التقبل في الصلاه على خير الرسل وارزقني اليوم به السكينه ولترني الكعبه والمدينه الله اكبر يلا يلا ورسل اقدل ويلا من كابا المدينه بين دوخي ديغنتي مك أه، يينم جوجو موي زياره دي كابا pour دق وحي واجي ني سيمبي فيم تبان اك يينم تي موم تي بوبام وخنا هو الذي عيق جسمي an ziyaaratihi lakin lisaani lahu kal qalbi zawaaru waaye sama lammiñ ak sama xol ma ngi koy ma ngi koy ziyaare ji gaffaaru li tir dunoo bi wafku kan kabali bi man alaya li zawr li tarki zawruhu aaru nga xam ne kon léegi maanaam jëmmi ñàkk koo ziyaare ji rek moom aar la ko jàppe mooy berte la ci moom ñàkk ñàkk ko ziyaare ji waaw من قصيدة بني وفات الفقاح وحنا كم يبي وحنا جن يأوقني عيبي عن يأوقني عيبي عن الزيارة وأرتجي بمتيه البشارة متوجه دم نصاب نعم- دينان نعم. دينان كي قصيدة يال ما يكون مؤجي وحنا جن قصيدة بني وهذا إياه وقصيدة وجهت وجهي إليك اليوم مرتجيا كوني لديك كمن حج ومن زار ما يجيب ما يجيب tey nga may ma ma mel ne ña nga xamne aji nañ màkka ak nga xamne ne ziyaar ñu yonent bi alayhi salaatu salaam hadli hadli bi fadlika yaa wahaabu ya maliki kawni ladayka la dayka kaman bi ruuhi zawaaw ndeysaan wax na ci qasida wala khad karam la sax ñu yamal ko foofu ci ci ci ci ci ki bi ci yim mébét nonu hajji bi qalbi taqabbal waffini khata'an wal tamhu shayni wa kammilni bima zana kon mu andi bayu ju bare bare yo xamne da fay da fay ñaan suñ borom wërsëgal ko aj bugu muy sant yàlla dina lim doon ñaan bu mënta dem ci jëm nit lam doon ñaan ci ci ci suñ borom suñ borom defal na defal na ko ci bàttin razaqtani alhajja tayyan anta muqtadirun ma al jiwaari wa zawri fiika yallahu mu yëmu ci mu am ay nit ñu baari ay kilifa yu baari yoo xam ne dafa leen ajee bokk na ci suyuux yi ma lay waaj a wax الشيخ عبد الودود الحاجي الشيخ محمد أفلوات الحاجي الشيخ محمد بن مختار بن يا مختار الشيخ محمد عبد الله العلوي متعرف النفحات المسكية في سيرة المكية ينسل نفقة ين أجل يب موقف في ناس مؤمن دوغلول تي بغا اجي مكه ناخ تي اك اتام مومو جيمي تي توبا 1312 تي غداي جا 1895 نيك موي توخو دم تي فيلاج بي نخ مباكي باري sëñ bi doogu woon na ci aji ci atum jeexu 1313 waaw ba diggal sax lenn ci ay taalibeem ñu wàcc pour gunge ko pour pour ànd ak moom waaye dogal ba ñëw ci lañ ko yóbboo Gabon ci at moom bi muy bi muy tàmbali te ba mu demee génnul ci loxol tubaab yi ci jamono jooja ba ni mu ñëwee ci delloo ci borom bi subhanahu wa taala ci atum bam susim 1346 ab da tolloog 1927 ginaaw mu romb ci yóbbu ko ak yóbbu ko gaboog ak naf yu gën ko def ak iqaama jabri maanaam yóbbu ko gaboog ak téye giñ ko téye woon njëriñ waaw te wax juju boo demee ci téereb Cheikh Mouhamad Diop ad-Dagani da nga ko ci fekk radiyallahu anhu kon ba am na sax am naar bu bu boo xam ne nii ki ñu wax Mouhamad ibn Hamdi al al abhi al xam yi wax ne sëriñ bi waxoon na ko ne ko ndax ci waxoon na ko ci at moomee ndax bëgg ngaa dem xarama ndax sopp nga dem xarama ne sharifin mu ne ko waaw euh, bëgg naa ko lool mu dem ne ko dimal waaje dimal waaj pour ci at mi ñu ànd waaye yàlla du dugalu ko kon sëriñ bi yéeneen yépp mooy dem màkk ci ci léppam ba sax bu ñu demee ci sëñ Mbàkke Buso ci risaalam bi mu doon demee yow yow gouverneur gouverneur bind bind na ca leer bind na ci risaalam ba ne sëñ bi bi mu la ci ay soxla yi mu amoon ñett ñett rek mooy moom bëggoon na ko lool te def ko bi ci njëkk ma adaaw xaj bi mooy joxe faratay aj bi ak tabax jumaa ju mag Tuuba ak tabax ak école bu rëy boo xam ne nii jàngukaay lay doon boo xam ne nii mbooleem nit ñi dañ dañ koy jublu ngir sàkku xam-xamu diine kon lii di tegtale ne li waa wax ne maanaa kon ñoom seen yitte mooy tax moo tax kon Kaaba gaa nga yóbbu nañ ko Touba moo tax kon defuñ njiit ci aji kon wax ji sëñ bi wax dàq na ko bal ñii aji màkka ci biir réew mii ak bitim réew taaju ci taaju ci ci moom mu nekk seen seen kilifa kenn xamul nu mu toll maanaam lim bi boo ko doon lim lim bu bari lay doon waxaay ñu ñu dañuy dem màkk kon wax ji ki ko wax war na ko xoolaat te seetaat ko te ragal yàlla ci li muy wax ne Kaaba ga ma nga màkka lee nag waxi góor yàlla la joo xam ne ni dafay feeñal Euh, kasfu wuññigu ko suñ borom wuññil ay mbir yoo xam ne nii maanaama la ñu ca xam-xam jox wax nañ ko la ca def nag ñu bàyyi ko ak moom la bu ko defee nag wax na ne euh, maanaam loo xam ne daf koy radduwaat nee na mooy basfarani llahu bi anni waahidu min ahli badrin daal di bind moom ne waa xaafanii aljahidu loolu sëñ bi bind ko ndax bayit dafa am dafa am am am noonu min ahli badri wa naxa maa naxaanil maa naxaanil jaahilu sa nga ne santal waaye moom dafay dafa yàq bayt bi léegi nag mu ne léegi ci biir bayt yi mu ne sëriñ bi nee na kon ci waa Badar la bokk waaw ci waa Badar la bokk di di réyal wax ji ne kon léegi loolu dalil faw mu am dalil ci alquran sunna buy teg buy buy saxal loolu waaw góor yàlla goo xam ne nii yàgg na tag sahaba yi tag leen ca kaw jox leen war ma ji ma sëkk yàgg ñaan ni nisara bokk ci ñoom te bañ daan ànd ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam taalib ay muallafat yu bari ci ñoom taalib ab téere sa boo xam ne nii daf leen caa tudd tagg leen di nisara bokk ci ñoom di ko ñaan euh, jaari ca tànk ya nga xam fa lañ jaaroon ñoom fa lañ jaaroon ñoom ci ci yoonu yàlla ak yëkkati diine moom mu jihaat ci yoonu yàlla yëkkati diine lislaam jihaat boo xam jihaatu nafs la ni taxaw ci kanam noonu yi taxawoon ne lislaam du du dem mu taxaw ne dana dem def def dundam gépp yëkkati diine lislaam la jihaat ci ay ci ci ci mbindam te sax na ci alquran di aaya bi waxam ne walladina amanu wattabaathum durriyatuhum iman alxaqna bihim durriyatihim wa ma alatnahum min amali min shay kullu murin bima kasaba rahim te aaya boobu borom xam-xam yi bu ñu koy firi bokk nañ ci ñi nga xam ne nii dañoo gëm yàlla seeni seen yë gëm yàlla dañ leen di yégal ci ñoom ci àjjana doon te jotuñu seeni jëf seen darajay seen bay yooya kon buñ xamee ne kon ndekete yoo fi waajur bu baax jaaroon doom ñëw jaar fa teg fa tànkam suñ borom daf koy ci waajur yooye ci li ko suñ borom defal muy mu jublu ko sant yàlla bi ne suñ borom boole na ko ci ahlu badri ci liggéey effort yi mu defoon ak coono yi mu defoon ak liggéey ba mu doon def ak fam leen tegoon ak war ma jëm leen joxoon nga taxaw ne léegi loolu yàlla defu ko defal ko weddi ko teg ci ne nañ ma indil dalil ma ne karaama day léegi loo xam ne ko defal ab jaam mu ne suñ defal na ma ko nga ne faw bala nga bala koy gëm da koy fekk ci alquran sunna waaw ah kon day dana bari karaama yoo xam dañuy taxaw ne ndax loolu Seydina Omar radiyallahu anhu doon wax ni yaa sariyat jabal ndax loola moom dañ koy gëm noonu rek te loolu lañ war a def moom lañ def it teg wala dañuy dem fekk nas ba ci alquran wala ñu fekk ko ci xadis door ko door ko nangu doo ko gëm yaakaar naa loolu bunt la boo xam ne yaakaar naa xel du ko mën a nangu li ñuy nangu kay di ko xool mooy ñu ki wax mooy kan ak li mu wax mooy lan ak li mu wax ndax sax na wala mën naa nekk wala mënta nekk te lépp li nga xam ne nii moom la indi leeral ko dàqonte nag karaama wala dàqonte wut ak karaama bu saxee ne mën na dugg ci buntu karaama lan moo koy weddi lan moo koy daq dàq ko kon dàq ko ak par par loola ak ñàkk a nangul waaye kenn du ko dàqi xam-xam kon euh, sax na ci mbindam di mébét a nekk miséré nekk ci ñoom bu demee ba suñu borom ci kattanam ak xerañam Sing baxam ak yitte ji mu joxon diine ak jihad bi mo ne suñu borom bo diine nañ ci wa badr la bok nga taxaw di ko wedd tangai da ngay da ngay dem da ngay da ngay da ngay da nga faaw damay gis ab text ci alcorane wala tax sek ci sunna do ko saxal japp na wii suwu rek mo niko amna mbokk moko misal ci misal mu euh nit ku taxaw ne defal nañ man nang wala añee nan nang nga ne ko lu wiru na faaw ci fekk ci alcorane sunna loolu da nga da yoru da yoru lo لكن لسات موني موي موي موي موي دالتي اذا كتبت اهتز عرش الباقي وصبحت ملائكة تبقى أن فهنا بو بو بو أن إذا كتبت اهتز عرش الملك واهتز بالتسبيح كل ملك كل ملك لولو من متكنا ذلك فضل الله نعم الله ربي ولا إله إلا الله لا جايك أرش بيغا خاندي moom taxaw na di ko weddi ne loolu amul ci mbindam amu amul maanaam nangu nanguwu ko daal aw mu am dalil liñ war a taxaw mooy jaayu aras mooy lan sax na ci qissat Saad mu Muaaz de ci xadis boo xam ne moo ko nekk li radiyallaahu anhu mu ne dégg naa Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ihtazza al-arshu li mawti Saad ibn Muaaz ihtisaas bu ñu koy bu ñu koy leeral wax nañ ci bari waaye nee nañ bu dee li nga xam ne jëlee nañ ko ci Ibnu Omar inda al-Hakim man ihtazza may faraxan bis bég ci al muraadu bi ihtizaaz al arshi mooy ihtizaazu xamalat al arshi kon béggub euh, aras maanaam jaayub aras mooy béggum bég ci ak dikkam ak béggum bég ci bu ne ihtizaaz mooy bu mooy istifsaaruhu wa sururuhu bi qudoomi ruuxihi mooy béggam ak kontaanteem ci ruuxam gi dikki mu dikk kon béggu aras loolu lay tegtale waaw su fekkee mbégteem araf dafay tegtale maanaam maanaam jaayum araf dafay tegtale mbégteem bu góor yàlla nekkee di liggéey ci yoonu yàlla nga xam ne kon loola gisuñu fu ko xëy fu ñu ko xëyloo fu ci ne moom dong ci ci leen kon aras ak ak ak jaayoom mi ngi tegtale ak am mbégte ak bég gu mu bég ci jaamu bi yàlla bu yàlla gërëm kon bu jaamu bi yàlla nekkee di jaamu yàlla di liggéey ci mbindam ba gis ne mbindam mi kat comme ni ko Cheikh Ahmad dem bu sookoon waxee ci tanbihul arbiya di wane ne li mu wax bi mu wax ne ida ida katabtu htaza arshul maliki wa htaza bi tasbih kullu malaki loola lépp iqtibas la ishaara la radiyallahu ci ne bind gi muy bind daa bind ci boppam daa bokk ci mbir yi nga xam ne nii aras da ci jaayoo ndax li muy bind dafa doon loo xam lu lu gërëm loo yàlla la yow nga taxaw ne loolu amut yow mi weddi loolu kay yow lañ war a laaj ne la lu tax nga ne loolu amut da ngaa bëgg a tax dit weddi gi nga ko weddi ne mbind mi amut ban dalil nga ciy sukkandiku ban dalil ngay sukkandiku ci wedd gi ginnaaw aras moom maanaam ak jaayoom dana dana dana bokk na ci maanaam jaayu bind mi bokk na ci la aras da cay jaayoo euh, ngir mbir mi moomu ngir dafa dok mbir moo xam dafay loo yàlla suñu borom subhanahu wa taala di merloo iblis moom moom sax na ci mbind ne yàgg naa bind loo xam ne dafay gërëm gërëmloo yàlla moo wax loolu nga taxaw ne loolu amut lan saf nag ci mujj ga moy wonane yi yep buñ koy def dañ koy def ñoom ngir feñal seen bop ak ndamu wallaay dafa xamul séparation bi ja ci digënté sellal sa bop tazkiyat nafs ak tahaddus bi ni'amillah bari na lu señ bi wax bari na lu señ bi wax deug deug deug daf ko wax ngir waxtane xéewal bu ko yalla defal waye du ndam du kañ ta waxtane xéewal bu la yalla defal nak lolu sant yalla la tanu bu fekkene kep ku wane rek ku wane ku ku ku ku xaw a yëg koo xam ne nii wan na ci boppam dara loola tazkiyat nafsi la ah da nga da nga da nga bëri ñoo ñoo ñoo askane loolu de waaw bal waxtaane xéewalug yàlla la xam nga bu sang bi waxee sallallahu alayhi wa sallam ana sayyidu waladi aadam wala faxr wa ana awwalu man tanshaqqu anhu al ard wa yadxulu al janna wa ana a'lamukum billahi wa atqakum loolu du du du tazkiyat nafs kooku sant yàlla la ak maanaam loolu loolu wane ndax euh, ci biir sent suñu borom ki kii wax loolu ci ñaari anam benn am na koo xam njariñul kese la làmboo mu wax loolu ngir aadama yi xam ne kii njariñul kese la làmboo mu wax ngir nit ñi xam ko loolu bu dee boobu xam nañu ne bu ñu gërëm la waaw bi bi ñu gërëmul kay mooy nit ki bu ko defee ngir yëkkati boppam waaw kon bari na loo xam ne góor yàlla dañ koy def ngir euh, wane maanaam dañuy sant suñu borom subhanahu wa taala xanaa kon li Ali waxoon kenn ci alxulafa rachidun di wax ne moom ci boppam inni la ahadu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam al al dégg nga allah yuhibbani illa muminun wala yubghidani illa munafiq wane ne képp ku ma ab jil rek moo bëgg waaye ku ma bañ ko ne ab nafiq la xanaa loolu taskira allahu akbar loolu xéewal bu ko yàlla dafa la mu di ko mu di ko nettali mboolem buñ demee ci النفحات المسكين دنج في جس بونتير بس هاد دنج بارا بارا كتار مسحال يعني اللي يكو انجير انجير انجير انجير سنت يلا واي بيتاجي نكلم لين دفع تنجك تي واي بيتاجي دنج كوا انجير فينال سينباب اجدي تركيا سينباب اه، بوخوليت اه، جلال دي سيوتي رحمه الله رحمه كسوائق على على على على على على من السوائق على النوائق وهنا ليس من باب الافتقار ولا تزكية النفس بل لهم في هذا وجهة مانام لولو دوغ سي بنتو افتقار ادي سلا سبب بل دا ام نياري انام انام بو نيكي موي من باب التعريف بنفسه ومقامه اذا جهل مقامه فعلا تخوايام خامل بوبام اك تخوايام فكي دنجكو دنجكو ريري انام نياري جي مانام an hada min babi taxaddus bi niamatillahi shukran wa imtisalan li qawlihi taala wa amma bi niamati rabbika fa haddis kon daal bu ñu résumé wax ji mooy wax gudd gàtt mooy waa ji jubluwut tasawuf jubluwut niti tasawuf wax ju mu jël daf koy tawile ci nam gën a bone ci nam gën a ñaawe ngir dawloo nit ñi tasawuf waaye li am solo mooy doomi aadama yi xam ne góor yàlla yi nga liggéeyal nañ yàlla ci yoon ci façon boo xam ne ñëpp teg nañ ci seen bët yépp wax ju bàyyi ko ci ñoom bu jaralee effort ay nit yu yoo ñuy def ay effort ngir ñaawal seen der ak yàq image seen image ci nit ñi war naa jaral mbooloo ci julli ñu taxaw nag ñu ci anam lan xam ci seen biir wax yu ñu leeral ko ngir ngir ngir wane ne góor yàlla ak wala suñu borom yi waroon a war naa tegle ca kaw buñ taxee ba leen di taqal kon lan ma fi seeti lan ma fi seeti kaddu gi rek lan doon yëkkati lu ci jub ci borom bi lu jóge subhanahu wa taala lu ci dëng ci jaam bu matul bii ma bàyyi ko in uridi illa al islam astatato ma tawfiqi illa wa ilayhi unib wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.